Info 7 TV ginnaaw bi ñu waate nuyuwaatee leen jaajëfal leen ci ànd bi ak ñun ñëw rek jox leen fi ab xibaar xam ngeen ni ñu ngi waajal li nga xam ne mooy élection législative yi nga xam ne le 31 juillet 2022 ci lañ ko fas yéene amal coalition wàllu Sénégal bu maître Abdoulaye Wade nga xam ne xam ngeen ko bu baax a baax PDS PDS goo gi leen nag bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi la xam ne ñooy Dakaractu ak waa Seneweb ñu ngi xam ne nag PDS goo gi boo xefee rek élection yi moom dina ko wuute la ko waral nag mooy jafe-jafe ci wàllu parrainage yi xam ngeen ni ñoom nag validé nañ li tolloog trente mille trois cent cinquante six euh, parrainage yoo xam ne validé nañ ko saytu nañ ko baax na waaye nag euh, trente quatre mille cinq cent quatre vingt moom la ñu war a am ba tax na daal ñoom fii ak ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu élection yooyu la di gëstu li nga xam ne mooy wàllu parrainage yi jamono yi ñu ngi toog di leen taaxeerlu fii ak 48 heures ngir ñu lijjanti mbir moom mi leen ndax PDS dina dem ci élection yi wala du ci dem li ci kanam réwti ba dinañ leen ko toppal ci Info 7 TV wii leen di ànd ak ñun di abonné tey bés kolos bi lépp lu ñu leen wàcceel ngeen teel ca jël takk ndeeru askan wi Info 7 TV